alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi waxdahu alhamdulilahi xaqa xamdihi wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalina sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam xaali Ousmane asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilahi rabbil arbaabi wa muqaddiri asbaab. wa xaaliqi xalqihi min atturaab. wa jaacili suduuri awliyaaihi al ahbaabi xazaa'ini al asraari wal ahkaam. wa sawwaranaa kamaa yashaau fi l-arxaam subhaanahu wa huwa al-aziizu al-xakiimu al-mudabbiru al-xabiiru al-aliim wassalaatu wassalaamu alaa man bu'isa li iqaamati al-xujjati wal-burhaan sayyidi bani adnaanin yanbuucu al-xikmati wal-irfaani aynu rahmati ar-rahmaani sallallahu alayhi wa sallam الواسطة لجميع الرحمات الإلهية والفيوضات الربانية وآله وصحبه الذين أيدوا أركان الدين وشيدوها خير تشييد رضي الله تعالى عنهم أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam Xali Ousmane Chérif ñu delluwaat fa tabaarakallahu ci suñu jotaayu tey di suñu ñaareelu jotaay ci émission tamxarit mm-hmm. di la nuyu mm-hmm. di la ziyaar waaye fa tabaarakallahu di jaare ci yow ngir waxtu wi ziyaar mbooleem xalif généraux yi ñëpp jaare ko ci cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir. fa tabaarakallaahu sëriñ Babacar Si Mansour suñu sëriñ. suñu wayjur suñu kilifa suñu lépp. ñaan yàlla subhaanahu wa taala na ko yàlla gën a dëgëral. amiin yal yàlla yokk wéram. yal na ko yàlla sàmm. ak mbooleem njabootu maam Seydi Hadji Malick waaye ah. ak njabootu lislaam bi yëpp. amiin yaa rabbi ndiki noonu suñu bàyyi El Hadj Abdoulahi Thiaw Laay. xalifatul muslimin fa tabaarakallaahu ak njabootu Seydina Limaamu yëpp rek. waaye nuyu nag beral nuyoo suñu baay suñu soppe Thierno Mouhamadul Bachir Tall. Tall ndeysaan macha allah Thierno Bachir yal nañ ko yàlla fayal. fa tabarakallahu mag mu baax. baax mag mu yiw. mag mu bëgg Chérif Ibrahima Aïdara Tidiane waaye mag mu la bëgg. waaye sax nag. ku bëgg Cheikh El Hadj Abdoul Aziz bëgg ñëpp bëgg ñëpp képp kuy jullit bëgg lu baax wallaahi ñu nuyu leen jaare nuyoo boobu teg ko ci loxo suñu bàyyi comme ni ñu koy defee saa su ne suñu bàyyi alhaaji Mouhamadul Muniru Njëgën Njëgën boroom ñaari xilaafa yi xilaafa maam alaaji Ahmad Baro Njëgën xilaafa maam alaaji Ahmad Njëgën ñaan yal na yàgg ci jotaayam amiin yaa rabbal aalamiin yàlla na ànd ak wér amiin amiin koy tooñ léeg-léeg ma ne ko yaw li tax sa jotaay bi neex ci ñun mooy bu ñu bëggee lu sérieux ñëw def la papa waxtaan ak yow lu sérieux nga jàppale ñu ni papa di taxawoo doom ndeysaan waaye bu ñu bëggee dara yi bëgg a lekk sa xaaris bëgg laa nax hmm. dañuy ñëw def la maam ndax yow yaa fii maam allaaj ba doon suñu papa ndeysaan fa tabaarakallaahu waaye mu oyof wàcc yàlla leen terale fa tabaarakallaahu ñu ñaanal kilifa diine yëpp ci deuxième jotaayu tey bii nga xamante ni mooy ñaareelu fan ci weeru tam xarit di ñaareelu émission di émission bii nga xam ni mooy tam xarit te hmm. seen assurance vie maye ko Chérif bismillah bokk ci la la ñëpp bëggee ci li la ñëpp fonkee mooy këru diine yëpp nga jël bëgg leen fonk leen ngir lan ngir yàlla ngir lan ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit di nuyu Cheikh Mahi ñas nga xamante ni mooy xalifa maam Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima yen gi yàlla yen ko yal na ko yàlla woyofal toy bi jaa'i rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yal na yàlla doon sa kóotaay waaye di ñaan sa mag ju baax jooju nga xamante ni moo jiitu yal na yàlla yokk leeram yàlla taas ñu ci barkeem ak mboolem xalif généraux jiitu yëpp yal na yàlla dolli yërmande ci ñoom Tafsir Abdourahmane seen assurance vie mu ngi lay nuyu jërëjëf ay dara alhaaj Mouhamadou Faye jërëjëf administrateur directeur général ak njabootam yi ànd ak moom di ko jàppale ci liggéey bi ki nga xamante ni mooy monsieur Ndiaye di directeur commercial ak mariyem Ndiaye bi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk ak mboolem ñi nekk seen assurance bi di ñaan yàlla yal na yàlla assurer seen mbir yëpp bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ñëpp nag sénégalais yëpp mhm. nañ ci jàpp ndax ñii kat dañoo jàppale l'islam bi kon képp kuy jullit nekk ci réew mi war nga leen a jàppale ku jullit sax ku dul jullit mooy dem assuré ji rek wa dem assuré ji jàppale leen mooy jàppale sa bopp ci lu wér man incha allah bëgg naa sax ñu assuré xale yi daara ja incha allah fa tabaarakallaahu ndax ñu ngi wax seen assurance boobu solo su mu am waaw macha allah muy at takaaful at takaaful fa tabaarakallaahu tey xale boo fa assuré mhm. pendant muy am dix huit ans bu yi am na lu ñu koy jox mhm. bu mokkalee daara ji ji mu tombe ak mu am métier ci formation professionnelle u daara ji mu am som bu am solo bu ko seen assurance vie jox mu mën a ber daaraam bu fekkente ni atelier la bëgg a tijji mu bëgg a jënd matériel ak yooyu yëpp moo tax kon nañu adduna bi yëpp nañu dem assuré ji ah, Chérif looy kon nag ñu ngi assuré tam ci wàllu ak màkk gi mhm. noonu tamit lañ koy defee ci wàllu gàmmu noonu lañ koy defee ci wàllu màggal gi mhm. noonu lañ koy defee ci fànn bu nekk mhm. école alquran bi ak école française bi ñëpp fa nit ñu wóor nit ñu diñ alhamdulilah yàlla na yàlla jàppale bi jaay rasulillah waaye xaali Ousmane ñu ngi ànd tamit ak distingo tabaarakallahu ñoom i tamit nekk ci émission bi di jàppale suñu émission bi émission tam xarit ñuy ñaan yàlla ñoom i tamit yàlla na yàlla def ci ñoom barke xaali Ousmane tey ñu war a waxtaanee dama doon nafar bi may nafar rek seen ci alquran li yàlla di wax benn jëmm muy kan muy yont yàlla ibrahima yàlla naan inna ibrahima mhm. kaana ummatan qaanitan lillahi nee na ibrahima benn jëmm la mhm. mais valeuru nation mhm. la am nee na boo jëlee àddina yépp teg leen nga jël ibrahima teg ci balance ibrahima wat leen ma ne waaye lii doy na waar de <laughs> gis wazkur fil kitaabi ibrahima innahu kaana siddiqan nabiya ni ibrahima daal ndekete tamit amoon na ci ay jikkoom benn jikko boo xamante ne yàlla wax na ko fësal ko ci alquran nee na ibrahima ku dëggu la woon te nag damaa gis tamit yàlla ci boppam ku ñu bind rasulullaay tax mhm. lu ñu bind yonti yàlla muhammad a tax mooy gën gi mbindeef moo gën ci mbindeef yi nekk teef yi waaye yàlla nee na ko na nga roy yonti yàlla ibrahima wattabi millata ibrahima xanifa mhm. ibrahima moomu tafsir laa bëgg nga waxtaane waaye dëgg la yonant la mhm. waaye yitteem man defe naa ni boolewuloon yàlla ak kenn parce que yàlla da ko tànn muy xaritam bi mu nekkee xaritu yàlla benn bis jibril ñëw na ci moom fekk ñëw ñëw ñoom malaaka ña waa ibrahima mii nga tànn muy sa xarit mu ne kii li tax ma tànn ko maa ko xam benn bis dafa ñëw ci moom rek ne laa ilaha illa allah ibrahima dafa bëri woon alal dafa bëri woon alal ay jur xar nag bëy gëléem bëri wólle bëri woon na ci amoon na sax am na ñu ne amoon na sax trois cent treize xaj xaj bu ne takkal na ko collier or ci jamono jooju ñuy topp jur gi lislaam terewul nga yar xaj waaye xaj bu yoon tere lay bañ mën nga am xaj mu di la gardeel tool yi mën nga am xaj mu di la gardeel kër gi mën nga am waaye nga jël xaj def ko palaasu nit loolu lañuy bañ xaj xaj la waaye nag mboolem mbindeef yeeg nekkateef yi da leen di bëgg da leen di fonk waaye ba waa ji ñëwee ci moom ba yonent bi ñëwee ci moom ba jibril ñëwee ci moom dafa ne laa ilaha illallah mu ne ko sama genn wàll alal jox naa la ko ndax lan ku tedd ki nga tudd muy sama borom jël jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu ñu toog di waxtaan bi mu yàgg mu ne ko waaw baat bi nga tuddoon sànq laa ilaha illallah doo ko tuddaat ma jël li des sama alal jox la mu newaat laa ilaha illallah mu ne ko li des ci alal gi yëpp jox naa la ñu toogaat mu ne ko léegi doo ko tuddaat ma wëlbatiku di sa surga di la sàmmal say jur mhm. mu waxaat ko nekkoon na milliardaire de même pas deux heures de temps mu nekk surga mu ne ko dëgg-dëgg li suñu borom wax ni yow yaa ko gënal koo am ak lu mu am ak lu mu mën a doon mhm. dëgg-dëgg yow mii yow yaay xalilullahi yow mii yaa gëm sa borom yow mii yaa wéetal sa borom yow mii yaa boolewul sa borom ak kenn moom Ibrahima bëgg gi mu bëggoon boromam wéetal gi mu wéetaloon boromam waaye dëggu gi mu dëggu woon moom yont yàlla Ibrahima tafsir dama bëgg nga indil ñu ndax kat war na gannaaw ay wajuram ndax boromam. Mhm. muy baayam. Mhm. war na gannaaw buur te buur boobu jamono jooju ruus moo yilifoon adduna yëpp buur bi xëpp ko mu wan gannaaw buur bi ndax boromam dëddu lépp jo dëgmal boromam subhanahu wa taala ma bëggoon daal nga indil ma importance boobu nga xamante ne yàlla jox na ko yont yàlla Ibrahima. Mhm. lan moo ko war a may loolu. baarakallahu Aydara fa tabaarakallahu yàlla na yàlla fay. amiin indi nga koo xamante ni yonent yàlla Ibrahima mbooleem diine yi. Mhm. nga xamante mooy diine yonent yàlla Muusa diine yonent yàlla Isa diine yonent yàlla si sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yëpp boo ko toppee rek day aju ci diine yonent yàlla Ibrahima Ibrahima fa tabarakallahu moom la doon woowee moom Ibrahima abul anbiya yi moom yonent yàlla Ibrahima mooy baayu yonent yi parce que Ibrahima bokk na ci magi yonent yi nag mm-hmm. bu fekkente ni juumuma ndax daf ma bett gannaaw aadama nuuhin saalih huut ibrahima moo ñëw mhm. moom ak luut ñoo bokk jamono mhm. ibrahima moomu nag fa tabaarakallaahu xam bokk na ci yonent yàlla ibrahima mi nga wax nañu ko waxtaane tey jii mhm. mooy dafa am xel yàlla daf ko ubbi gis nga yàlla subhanahu wa taala bu la bëggee dimbali. Mhm. daf lay ubbi. Mhm. ku yàlla teg ci ku yàlla ubbi rek nga gis yàlla mooy ubbi sa sa sa sa bëti bëti bëti xol. yi mhm. nga xam ni moom ngay gisee. alquran a ngi koy wax. wa min ayaatihi allaylu wannahaaru walchamsu walqamaru laa tasjuduu lilchamsi wala lilqamari wasjuduu lillahi alladi xalaqahunna in kuntum iyaahu taabuduun yàlla subhaanahu wa taala pour ñëw ci Ibrahima rek mhm. wax la fi yàlla jaar ak moom mhm. yàlla nee na bokk na ci ay mandargaam moom yàlla mhm. bokk na ci ay kéemtaanam moom yàlla subhaanahu wa taala mooy boo xoolee guddi ak bëccëg nga xool jant ak weer yàlla nee na bokk na ci samay kéemtaan loolu bu ngeen ko xoolee rek di ngeen xam ni man yàlla may yàlla mm-hmm. loolu ku dul yàlla manoo ko mm-hmm. subhaanahu wa taala gis nga Ibrahima ci biir waxtaan wi di nga ci ñëw digganteem ak buur boobu ñuy wax Namruus mm-hmm. keroog ba nga xamante ne taxaw naa ak Namruus ñoom ñaar ñuy discuter Namruus ni ko kan mooy yàlla mu ne ko yàlla yox yi wa yumiit mooy dundal day rey day dundal Namruus da ko ni loolu mën naa ko mu ne ko loolu Ibrahima ni ko loolu noo ko mane Namruus jël ñaari prisonnier daal di libéré kenn ki rey kenn ki ni ko kii maa ko dundal kii maa ko rey <laughs> xanaa kon def naa ko Ibrahima ni dof bii bu ma ko toppee dina rey ñu bari mhm. daal di ni ko yàlla am na leneen lu mu man mu ni ko lool lan la mu ni ko yàlla subhaanahu wa taala day génne jant ci sowu bi dugal ko ci day génne jant ci penku bi dugale ko ci sowu bi léegi yow defal loolu génneel jant boo xam ne sowu lay génne dugge penku foofa la nam fa buhita alladi kafara wallahu laa yahdi al qawma alzalimin yàlla subhaanahu wa taala nee na bokk na ci samay kéemtaan man yàlla guddeeg bëccëg jant ak weer foofu nag yàlla subhaanahu wa taala ni bu leen sujjootal jant ndax am na ñoo xam ne jant la ñu doon sujjootal di ko jaamu ni jant mooy yàlla mhm. moo waral ci mazhabu Malik heure bi jant bi di doog a génn noonu ak heure bi nga xam ne jant baa ngi ci dugg ñuy bañ ko ciy julli ndax dañuy bañ nga nuroo ak koo xamante ni da ngay jaamu jant hmm. la tasjudu li shamsi wala lil qamar moo tax hmm. Hmm. wasjudu lillahi alladi xalaqahunna in kuntum iyaahu taabudun suñu borom subhaanahu wa taala ni na sujjootal yàlla mi nga xam ni moo leen bind bu fekkente ni yàlla rekk ngeen di jaamu bu leen sujjootal kenn ku dul yàlla ndax yàlla moo bind jant yàlla moo bind weer yàlla moo bind guddi yàlla moo bind bëccëg waaye yàlla moo bind lépp lu mënti doon mm-hmm. faatiru samawaati wal ardi kenn ki la mm-hmm. loolu nag la yàlla defal ibrahima benn ilham defal ko benn kasfu mm-hmm. ibrahima tëdd ba mu yàgg rek daal di ñëw nii wa iz qaala ibrahimu li abihi aadara atattaxidu asnaamana liha inni araaka wa qawmaka fi dalalin mubin وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر باضغا قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون ولا بوك فلما رأى الشمس باذقة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قالت قال يا قوم إني بريء مما tushrikuun inni wajjahtu wajhiya lilladi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana min al mushrikin foofu la yàlla jaar ak sama yonent yàlla Ibrahima ba toog ba mu yàgg mu ni man daal yii ngeen di jaamu papa jaaxal na ma mhm. nan ngeen di jaamoo loo xamee ni yéen a ko yat loo xamante ni ay bant la mhm. yéen a dem gor xay gi wala yéen a dem ngeen gor kàdd gi mm. wala guy gi mm. yattu ko def ko lu mel ni benn estati ngeen taxaw di ko jaamu di ko màggal yéen a samp butéel yi yéen a samp kuur yi yéen a samp ndaa yi ba pare dem fa di fa eh, ñaan yàlla pour mu faj seen aajo ak di fa làqatu pour ñu da leen di musal lu waral ngeen di def loolu papa jekk ba mu yàgg suñu borom subhaanahu wa taala nee na bi muy wax loolu ak waajuram rek ni man daal papa li ngeen di jaamu daal man deñ naa ci man daal du ma jaamu lu dul yàlla mi nga xam ne moo bind asamaani juróom-ñaar moo bind suufi juróom-ñaar gis nga tawxiit mhm. moom la Ibrahima déparé mhm. foofu rek guddi jot rek mu gis biddéew bi mel ni mu ngi doog a gis biddéew tey mu ni ah haada rabbi mhm. kii nag mooy sama boroom lii nga xam ni dafa génn leer naññ nii mu leere nii lii nag laay jaamu man mais mu jékki tuuti rek nee na biddéew bi bi mu génnee rek mu dugg weer wi génn mu ni ah koy jaamu xale kay da ngaa gisul mag mhm. comme ñoom ñëpp ci kaw lañu ñu ne te kii moo gën a màgg mhm. moo gën a rëy kon naa jaamu weer wi mhm. bi mu tàmbalee ni naa jaamu weer wi nekk ni weer wi mooy sama yàlla parce que mooy benn làmp boo xam ni moo leeral àdduna bi yépp foo dem di ko gis kooku moo mën a doon yàlla kookoo ngi gis lépp xëy suba rek jant bi génn weer wi génnatul <laughs> mooy fala maara bi jant bi génnee rek mu ni kii nag moo ëpp ñépp nag mhm. kii nag laay jaamu mhm. waaye fala maa falat ba jant ba suuxee rek qaala yaa qawmi Ibrahima nag yoon la woon sax nag woo mhm. xam ni yoon la woo xam ne moom lu ñuy tuddee introduction pour mën a wax ak ay nitam yaa xaw mi ee eh, yéen samay nit mm-hmm. yéen sama famille mm-hmm. inni wajjahtu wajhiya man nag jubale naa sama jëmm lilladi fatara samawati wal arda hanifan maa ngi ko jëmee ci ki nga xamante ni moo créé moo bind asamaani juróom-ñaar moo bind suufi juróom-ñaar dañ naa ci jaamu lépp lu dul kooku wa ma ana min al te man nag du ma bokkaale yàlla moomu ak kenn man Ibrahima foofu la Ibrahima nag tàmbalee nag discuter ak ay nitam mm-hmm. Chérif kooku mooy yonent yàlla Ibrahima Ibrahima baayam am nañu ni azara la mhm. loolu nag moo gën a siiw am na mhm. yenn boroom xam-xam yu naan azara yu jiit léem la waaye alquran daal dani wa iz qaala ibrahimu li abihi azara ba ibrahima waxee papaam azara mhm. kon nañu jàpp ni azara moomu mooy papaam ibrahima tàmbale na nag di wax ak papa ji ma hadihi tamasil allati antum laha aakifuun qaaluu wajadnaa aabaa'anaa lahaa caabidiin qaala laqad kuntum antum wa aabaa'ukum fi dalaalin mubiin qaaluu aji'tanaa bilxaqqi am anta min allaacibiin qaala bal rabbukum rabbu alsamawati wal ardi alladi fatarahunna wa ana ala dalikum min alshahidin wa tallahi la akidanna asnamakum bada an tuwallu mudbirin fa jacalahum juzazan illa kabiran lahum laallahum ilayhi yarjicuun qaalu man facala hada bialihatina innahu la min alzalimin qaalu samicna fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibrahim qaalu faatuu bihi ala acyunin للناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم Mm. uffil lakum mm. wa lima taabuduuna min dunillah afala taaqiluun rentré na leen kon tàmbali na mm. rentré en matière am moom Ibrahima yàlla nañu yàlla fayal yonent yàlla Ibrahima amiin yaa dama bëgg dajale na nit yépp ba ñu toog yonent yàlla Ibrahima ni leen waaw lan moo waral ngeen di jaamu yi nga xamante ni yéen a ko jaamu yéen a ko yéen a ko yat yéen a ko créé yéen a ko defar lan moo waral loolu lu ko waral ma hadihi tamasil allati antum laa yéen ko yett ba pare di ko jaabu lan moo waral loolu xam nga lan mooy tontu bi hmm. mooy li xew léegi ci jamono hmm. xam nga lu ñu ko tontu hmm. mooy dañu ko ni ñun kat Ibrahima bul ñu fontoo suñu ñoom maam ak suñu ñoom pàpp dañ leen a fekk ñuy jaamu lii loolu moo waral ñu koy def waaw inna wajadna ana ala ummatin wa inna ala athari mu'tadun ñun daal ñoom maam la ñu fekk daal ñuy tuur deret fii mm. ñoom maam daal lañu ñu fekk daal ñuy ñëw di uh, samp uh, uh, kuur yi di samp ndaa yi di samp butéel yi ñoom maam daal la ñu fekk ñuy tuur fii soow mm. ñu ñëw di ko def comme ñëpp mm. ah loolu daal moo fi am inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala athari mu'tadun loolu daal la def mm-hmm. ah, Ibrahima ni leen waaye yéen bu fekkee ni seen maam yi dañoo nekkoon ci sànkute yéen ngeen ne ci génération bi ngeen ne di dund jamono jii ngeen di dund tey xanaa du ngeen am xel wax dëgg yàlla seen maam yi dañu réeroon qaala laqad kuntum antum wa abaawukum fi dalaali mubin qaalu ajiitanaa bilxaqi am anta min allaa'ibin defe nañ ni Ibrahima day fo hmm. mais déggal seen wax ak Ibrahima mais Ibrahima ajiitanaa bilxaqi am anta min allaa'ibin hmm. hmm. yow ibbu yow lii ngay wax nii sa wax yii ngay wax nii eh. yow da nga nekk ci sa dëgg wala dangay ngay kaf mm-hmm. bu fekkee da ngay kaf nag moom suñu yàlla yii suñu xërëm yii ñoom kenn du leen kafe eh, bu fekkee nag danga nekk ci sa dëgg nag ñu xam xaala eh. ibrahima ni leen bal li fi nekk kay ñii du ñu yàlla mhm. rabbukum seen boroom rabbu samawati wal ardi mooy ki bind asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar mhm. alladi fatarahunna mooy ki leen créé wa ana ala dalikum min alshahidin te man seede naa loolu mhm. wa tallahi giñ naa ko nag man ibrahima ni la akidanna asnaamakum baada an tuwallu mudbirin bu ngeen demee bu ngeen mawanee gannaaw yii ngeen di jaamu di xërëm yii di ay kuur di ay ndaa di ay butéel dinaa dugg ci biir ñoom ñëpp dinaa leen gor dinaa leen dëbbate dinaa leen sulli dinaa leen sànni tasaare ko <laughs> Ibrahima li mu wax rëy na di ay dara ah, ah moom moo ko de waaye xale bu yàlla yee la mm-hmm. gis nga bu la yàlla yeewee nga ànd ak yàlla dangay ngay am fit Mhm. gisoo léeg-léeg waaraate nga nekk ci ba sa yaram tàng ngay wax dara mhm. léeg-léeg nit ni la moytul nangam nangam bul tooñ yemal fi yàlla yem rek gis nga boo yemee fi yàlla yem yàlla moo lay aar mhm. Ibrahima nation bu ne lumm ñoom la song wax ak ñoom ñu ne ko da ngay fa yaa ngi ci dëgg mu ne maa ngi ci dëgg parce que ki ñu war a jaamu mooy ak kii ak kii ñii ngeen di jaamu nangam ak nangam ak nangam ak nangam bu ngeen ma wanee gannaaw lii lépp dinaa ko gor dinaa ko sànni bu ko defee mu jeex parce que lii du yàlla mais boobu fit xale bu ànd ak yàlla la. Mm-hmm. suñu borom subhaanahu wa mooy nettali. dem nañu am nañu benn événement Ibrahima mi ngay nettali. Mm-hmm. am nañu benn événement te xoolal Ibrahima am na fu mu jaar ak papaam de. waaw papa ji. ab lawbe la woon. Mhm. ndeysaan. <laughs> maa ngi nuyu lawbe yi. ñëpp ci moo tax law ñëpp a baax. ñëpp a moo tax lawbe yi ku leen wax lu mu leen war wax ne leen ko ñun suñu maam yonent la. Mhm. ndax suñu maam Ibrahima la. parce mhm. que papa Ibrahima lawbe la woon. kon Ibrahima doomu lawbe la lawbe la. kon kay lawbe yi ay sëti Ibrahima la ñu. kon ñëpp a baax kenn gënul kenn. ragal yàlla mooy mbir mi. Ibrahima ndekete papaam lawbe la woon bu daan yatt ay estati di ko jaay. ndeysaan. am benn bis papa ji demul marché jox Ibrahima ni ko demal nga jaay. Mhm. Ibrahima teg fomp ba ñu set xërëm yi. Mhm. naan kaay leen jënd do dof yaa ngi nii. <laughs> ku ko jënd du la jëriñ dara. ku ko fi bàyyi avancé. ku ko topp di ko jaamu mënu laa jëriñ. mënulaa xëccal njëriñ mënulaa puusal lor kaay leen jënd maa laa yanfaukum wala yadurrukum <laughs> lu leen mënula jëriñ mënu <laughs> leen a lor kaay leen kañ lay jar <laughs> ay Ibrahima bu ñëw ni waaw mais doomu asara jii lu muy def nii lii lu mu <laughs> doon ci palaasu papam bi hmm. papam daan jaay yii di animé muy neex di wax njëriñal yii moom mu naan lii amul njëriñ du jëriñ du lor nangam nangam hmm. coow li tàmbali hmm. Ibrahima jaay ba ngoon dara jarul mu def lépp ci saaku yi yóbbu papam ni ko ibbu jaay nga mu ne ko jaayuma dara papa mu ne ko waaw noo doon jaayee mu ne ko man kat papa bi ma téggee dëgg rek laa wax nee naa leen lu mënu la jëriñ mënu lor ku ko jaamu boo deewee dem safara ku ko fi bàyyi rëcc nangam nangam papam ni ko Ibrahima da ngay saboote bàyyil Ibrahima nag yàlla subhaanahu wa taala nag nee na bi ñu ko wanee gannaaw nag am nañu benn événement bu ñuy dem. Mhm. bi ñu waree dem ci xew-xew bi mën nga ko tudde benn benn benn événement. pour nga bu ñu tudd benn festival. Mhm. ñuy dem ci feet bi Ibrahima ne inni saqim damaa feebar. Mhm. moo tax am na téere yu ni Ibrahima bis boobu la ma sa wax lu dul dëgg. keroog boobu mu damaa feebar te feebarul. te li mu ci jublu woon bëgguñu ñu dem bàyyi ko fi pour mu mën a. Euh, euh, euh, gor xërëm ya mm-hmm. bi ñu demee Ibrahima dugg ci biir mm-hmm. tàmbali ca yàlla yu ndaw ya yépp Ibrahima gor gor gor gor gor lépp ba mu mokk jël sémmiñ bi nag wékk ko bu mag ba <laughs> ñu jóge ci festival bi ñëw noos ya ñu doon def xam nga day am mm-hmm. lañu desal ca lekk yaag yooyu ñu war koo indi ci biir xërëm yi bi ñu waree indi nag pour tuur si ñëw fekk yépp ñu gor leen ñu daanu ñu fekk sémmiñ bi ñu ngi ko wékkal bu mag bi bi ñu ko wékkalee bu mag bi daat ni man faala hada bi alihatina innahu la min alzalimin <laughs> ah ki def lii tooñ nañu suñu yàlla yi ki jël simmiñ gi gor leen nii ah kii tooñ nañu am na benn waay bu jóg ni leen sami'na fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibrahim mm. am na benn waay bu leen doon sikkal boo xam ne ñu ngi koy wax ibrahima xaalu faatu bi ala ayun ñu ne dem leen jëli Ibrahima ñu indi Ibrahima Ibrahima ñëw xaalu ñu ngi ko naan a anta faalta hada bi alihatina ya Ibrahim Ibrahima ndax yaa def lii mu ne loolu lan la mais suñu yàlla yi yëpp ñu gor hmm. ñii ñu gor seen ŋaam ñii ñu gor seen nopp yi ñii ñu gor seen baat yi ñii ñu dagg leen ci digg bi ñii ñu dagg ci ginnaaw gi mais Ibrahima a anta fa'alta hada bi aliatina yaa def lii Ibrahima hmm? Ibrahima tontu na Mm-hmm. lan la Ibrahima tontu ay dara. Mm-hmm. fa tabaarakallaahu maa ngi nuyu mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ak ñun. macha allah tey jii Abbas Diallo fa tabaarakallaahu ñëw na. Mm-hmm. Mouhamadul Moustapha Ndaw ak équipe bi ñëwoon. ak Pape ñëw na ñëpp macha allah ak Mouhamadul Bachir Sall. ñëw nañu fa tabaarakallaahu ñu ngi nii assisté. léeg-léeg sax nga gis Ousseynou fàtte ni ci studio la nekk. daal di xaw a yëngatu def réaction. waaye Ousseynou nga dal rek nga xam ne yaa ngi ci émission télévision nga ne. nekkoo ca tànt yëpp Ibrahima jëli nañ ko jëw na mbokk yëpp taxaw nañu ñu ngi ci biir centre bi nga xamee ni mooy saal bi seen yàlla yi nekk gor nañu yu ndaw yëpp sémmiñ baa ngi ñu wékkal bu mag bi posé nañu Ibrahima question ndax yaa def lii yow Ibrahima ci suñu yàlla yi Ibrahima tontu na lan la Ibrahima tontu incha allah suba ci waxtu wi ngeen ànd ak seen assurance bi mu wax leen tontu bi Chérif bismillah kon xaali Ousmane suba ñu yeggale ko incha allah waaye nag delluwaat di ñaanalaat bu baax sëñ Modou Fall Sénégal broderie. moo ñu def nii. wallaay wallaay wallaay wallaay. moo solal tafsir. Mhm. moo ma solal. Mhm. di ñaan suñu borom subhanahu wa li mu mën ren yàlla na mën déwén lu ko ëpp. mbubb yi rafet na lool. riche na lool. Mhm. waaye ni ko El Hadj Ibrahima doon waxee. lu mu rafet rafet rafet lu mu cher cher cher chiffon la. nee na ñun ñu ko sol ay néew lañu. mu ne ani bassin yiñ fi wàcce woon 1902. yëpp ràpp nañu. ani nit ñu judd woon mille huit cent quatre-vingt-cinq ñëpp dee nañu mu ne kon xam nga fan la mbubb ne ñu ne ko déedéet mu ne fi mu dul ràppe muy aljanna mu ne xam nga fan la nit dëgg ne ñu ne ko déedéet saaxu ilimaan mu ne fi dee xewul fa la nit nekk muy aljanna kon fi mu budul ràppe yàlla na la fa yàlla wodd fu dee xewul yàlla na la fa yàlla dugal mm. yàlla dugal ñu fa wodd fa mm. bi jaay rasulillahi xaali ousmane bi muhammadin wa bi bintihi wa bi baaliha wa bnayhi musibtayni alaami lhuda wa bi sahbihi wa taabiina lahum fahum saadaatuna ahlul makaarimi wan nada kon xaali ousmane suba ñu yeggale ibrahima incha allah ay dara incha allah suba ñu àggale kon nag commencé nga jàpp loxo bismillah incha allah aywa ci émission yi tam xarit tam xarit Voici la liste de mes fournitures. S'il te plaît, papa, ne m'achète plus les mêmes cahiers de l'année dernière. Ah non, ça t'inquiète. Oh, mais cher na te Torop sax. Mais où est-ce qu'on peut trouver des cahiers de bonne qualité dans ce pays? yow papa nii rek. ci la. yow doo tu n'es pas au courant que Manufacture Sénégalaise de papier est de retour. Ah avec sa marque phare Distingo.